alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifaad bifurud wa sunan sakartuhu lianna qad saafani liwatani bihi nafa ma anfani asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa ko groupe Kër Sëñ Mor ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaar di sàmbalee ci ki ci mag ba ci ki ci gën a doon doon gone ki ci ëpp solo ba ki ci gën a ñàkk solo di man ñu ngi nuyu ñëpp di ñëpp macha allah di ñaan sunu kàddu yàlla na leen fekk ci jàmm di firndeel ñii li ñu wax rek. man de démb ci sama daara jii moom wax dëgg yàlla am na benn action bu fi am boo xam ne xaw ma nag wax dëgg yàlla waaji ji lu mu ëmb waaye daal teey xel teel na xel teel na xel lool lool lool sax. ndax dooma ne ci néeg bi tëdd saydaa yeeg ustaasi di jàngale euh, booba sax ñoom nodd nañ tàkkusaan bañ julli ba bay jàngaat pour ñu tëreegut tak yooyu ñoo de soon ci fi ñuy jànge ñi des di daw ci ëtt bi am ci ko ñëw ne ma bàjjande am na gan gu lay seet ma ne ko góor la wala jigéen mu ne ma góor la ma ne ko ah, kon bu ko wax ba jàll seen xaar ma ñëw fekk ko ci ëtt bi ñëw ne ko asalaamaaleykum sëñ bi na nga def mu ne ma maa ngi fi mu daan ne ma yaay borom daara ji ma ne ko waaw mu ne man de daa am lu ma bëggoon ma ne ko ah lu doon mu ma damaa bëggoon ñu ma wàcceel ab kaamil ma ko ah mu waaw ma ko ah waaw baax na xaaral ma ñëw wax ko ustaas bi sëñ bi ci biir moo moo yore daara ji moo ko gérer xaaral ma wax ko ko soo ko defee bu wàccee ànd ak saydaa bi ak beneen ustaas bi ñoom ñett ak xale yu jigéen yi ñu ci mën a wàcce ñu wàcceel defoon ne day wax lim bi mu bëgg demu yoonam wala mu toog xaar wàcc bi mu ne ma ah wàcc bi da daa may condition ma ne ko ah mu ne ma wàcce bi de juróom-ñetti nit la ñuy doon duñ ko ëpp duñ ko yées te jigéen du ci am yëpp góor lay nekk te it duñ ko wàcce fii dama leen di yóbbu fa ma koy wàccee bi ma waxee nag sama noo gi ne xaay ne gaa yi nag sama karaw yi di yëngu ma ne ah waaye ma ne ah xaaral góor gi daal bu ma ko ragalee du ma xam li mu bëgg ma ne ko ah wàcce bi moom góor nga ci taamu mu ne ma waa góor laa ci taamu de ba duñ nekk sax góor yu mag. ma ne ko ah léegi ku am dongo yu góor xanaa kon dalay booleeg ustaas dañ ciy ànd mu ne ma déedéet xale yi moom dañ ma leen di jox ma yóbbu ñu wàcce ma indiwaat leen ma ne ko ah te juróom-ñett nga ci soxla mu ne waaw ma ne ko ah man de kon yàlla génn na ma ci li nga bëgg ndax man man daaray jigéen laa yor sax ay jigéen laay jàngal. Euh, benn xale bu góor bu mën a bokk ci wàcce moo fi ne ñi ci des mënagunoo bokk ci wàcce man xam naa ne kii même bu li ma wax bu ci d'accord ne du ma ko jox samay gone waaye dama koy seetlu ma ne ko ah, bu fekkoon ne bëgg nga daal ñaari jàngalekat yu góor yi ak yaa sayda bi ak murabbiya bi suñ ci doole benn xale bi dinañ ko mën a mottaliw jigéen mu ne ma déedéet kaamil moom mag du ci bokk mag du ci bokk jigéen du ci bokk juróom-ñetti xale rek laa bëgg yu ndaw ma ne ah, foo bëgg ñu wàcceel la ko fa mu ne ma benn terrasse bu ne ci forage su boo jógee Gede jëm si Baxdaat xam nga foofu la forage bi ne ma ne ko waa xam naa ko bu wér mu ne ma terrasse bi ma bëgg ñu wàcceel ma ko fa la ne euh, ma ne ma ne ko ah, yow sëñ bi sore nga di yow forage su Gede ba biir Baxdaat ba àgg biir Baxdaat di dugg ci roq yi ba àgg si sama daara ji yow boo doon wàññi ñaata daara nga romb ci kaw tali bi. mu ne man mii di wax ak yow soxna si daara laa yor man mii di wax ak yow daara laa yor waaye sama daara dafa ne ci biir dëkk ba ma xam ne li may jëlee samay donga di leen teg ci sareet ñuy ñëw fii du ko jar te comme dëkkandoo na maak ay daara naa fi jël si rek ñu ma wàcceel ma ne ko waaye ñun sëñ bi duñ sa dëkkandoo duñ sa dëkkandoo ndax forage moom dafa soreek Baxdaad lool forage su Gede daa soreek Baxdaad te boo ñëwee ba Baxdaad it sama kër dafa sori tali bi ñun moom duñ dëkkandoo yu jegeeg yow ba nga nuy sédd wàcc mi euh, waaye ba yàgg ma ne ko waa sëñ bi fi ne boo demoon ci daara am juróom-ñetti xale borom daara ji da lay boole xale rek nga dem mu ne ma waa dañuy boole ñu dem ñu wàcc ma indiwaat leen ma ne ko jëwriñu daara ji du ca bokk mu ne ma déedéet ma ne ko ah, man de awuma loolu man jigéen laa mu daan ne jàkk xool ma ma xool ko fixé ko mu fixé ma ma ko mu daan ma. xamoo fi beneen daara ci koñ bi ma ne ko déedéet sama joj da xam mu daal ne wëlbit woon ma ginnaaw bi mu ne wëlbit woon ma ginnaaw ne tafar tafar di waaxu waaye gistuwut ma daal di génn buntu kër bi génne sama bopp di ko yër ndax bañ mu séen ma mu daal di waaxu wuti daara yi Abdou Dia ji ci sama wet ci laa daal di gaaw jël sama téléphone woo fekk maa ngi numéro Abdou Dia mooy nodd ci jàkkee daal ji ma woo ko ne ko foo ne yaa sa daara mu ne ma déedéet maa ngi ci penc mi bax daal di noddu tàkku dañ doon julli tàkkusaan ma ne ko ah, am na paa bu jëm sa daara de waaye bu ko booleeg doomi jàmbur mu ne ma ah loolu de moom alhamdulilah ndax maa ngi fi te ñooñu suñu ñoo dem te tàgguñ ma xam naa nag dafa dugg daara Abdou Dia laajte ñu ne ko sëñ daara bi nekku fi wala mu wax leen gone ya gàntu ma yor seen ko mu génnewaat kër Abdou Dia waaxu wuti penku bi ma xalaat ne daaree Seex du Thiara moom sëñ Modou Abdou Khadir la jëm ma daal di gaaw jël jël sama téléphone daal di wër numéro Saliou Fall daal di coupé noppi euh, woo sëñ Jili Diagne moom it wax ko ko ne am na waa ju ju ju sol xaftaan bu la yor kol gu weex day wër juróom-ñetti xale yum yóbbu ñu wàcceel ko te lim wax dara leeru ci comme ñëw ci sa daara bu ko jox ba ma wooyee sëñ Jili Diagne coupé daal ne ko wool nag daara yi ci sa koñ wax leen ko. daal di woo a bo moom sëñ Mbacke Fadja ma mi yor daara moom it daara yi ma fi xam daal rek ma gaaw kenn ku ne ma njëkkante léegi nag xaw ma nu mujj bi daal la awoon di waaxuy dem xaw ma am na xaw ma amul daal waaye loolu moom dund naa ko démb. waaye man wax ji waa ji bi mu tàmbalee sama yaram sama fit bi daw rek sama yar karaw yi ne xay rek euh, te it li mu wax daa dëng ndax yow moom waxut kër diw néewut kër sëñ diw laay wàcce néewut soxna diw terrasse bu ne ci wetu mm, gede forage su gede bi la wax. ak ñaata daara la romb foofu ba ba muy agsi Baxdaad ak lum ci moo juróom-ñetti xale ak lum ci moo góor kese euh, ak lum ci taam mooy ne da leen di yóbbu mais kenn dul ànd ak ñoom moom mooy ànd ak ñoom buñ noppi mu indiwaat leen ci yow kii ngay laaj ay doo yow xamoo ko xamu la xamoo foo dëkk su fabee juróom-ñett doomi jàmbor jox la nga yóbbu moom fu lay wëre day day dem fo day dem ca forage ba rek naan terrasse bu ne fii bu ñuy wàcc kaamil laay wër samay gone dañu fene doy na waa daal xam naa daal kay bu foogu tey ñaaw njort nag instant bi moom ñaaw njort dafa jot xam naa rafet njort baax na waaye instant bi moom ñaaw njort moo gën a jëriñ jëriñ rafet njort lii daal dund naa ko démb ci tàkkusaan moom xaw ma nag yàlla moo xam góor gi xëy na dañ ko yónni wala xëy na li mu wax dëgg la da koo bëgg daa xamul nu koy waxee xaw ma daal. waaw dañoo yëkkati woon suñuy kàddu nag di jégalu bu baax di ay donga yu xeeboo xeebu ngir ci fàttali di ko fàttali suñu bopp. di ko fàttali suñu yaabooy yi nga xam ne ñooñu mag jiituñu ci àdduna di ko fàttali suñu bàjjen di mais surtout di ko fàttali suñu kilifa yu góor yi suñu bàyyi ak suñu nijaay yi ak suñu càmmeñ yi suñu mag yi ak suñu ràkk yi ñi ñu amalante réew mi mooy ñi jullit ak ñi dul jullit ñun ñoo séq réew mi di Sénégal di fàttali suñu yaay yi ci xew-xew yi nga xam ne mi ngi am ñu war koo moytandiku bu baax a baax di batali suñu xel di ko yóbbante toujours ci njaboot gi ñu ngi sàkku ci bépp waajur bu mu mënti doon ci biir kër gi ak bitti kër gi soxla nañ fa sa taxawaay ngir nga sàmmal ñu suñu ndaw yi suñu doom yi nga xamante ni xamaguñu dara xàmmeeguñu dara mënalaguñu dara seen bopp ñu ngi leen di ñaan ngeen sàmmal ñu leen ginnaaw sàmm suñu boroom gi bu loolu jàllee tamit ñi ngi dénk bépp njaboot bu mu mënti doon sa doom bu dee dem na nga jël sa loxo teg ci kaw boppam doonte mënoo matale léppit mënoo jàng ayatul kursiw mënoo wax leneen it xanaa laa xaw xawla wala xawta illa billahi alim lazim di nga ko mën a wax juróom-ñaari yoon nga tifli ko ci jëm tifli ko ci digg boppam dem ak jàmm dikk ak jàmm waaye ni ngeen veillé tamit ci kaaraange xale yi ndax phénomène bi jóg ñun ñëpp ko gisandoo ci ñun ñëpp ci bokk yépp kenn xamul fu mbir mi di jóg di daanoo kenn xamul fi nga xamante ni fi mbir mi di ñëwee ci sa kaw waaye mag ñi dañu ni xoddiku bala ngaa lakkale te fagaru moo gën faju bërki démb gis nañ loo xamante ne am na ci dëkk bu sell bii di Touba muy benn tout tànk boo xam ne jotoon nañ koo jël ba am luñ doon jëm ci moom gisaan nañ ginnaaw bi tamit koo xamante ne jël na benn xale doon dugg ak moom ci tabax am ko ko gis biig njaay démb gi tey jii tey ñi nekk ci altine démb ci guddi di guddi altine laa même chose xewaat ci fii nga xamante ne moo di magasin bii di magasin Baydam ci garage su Daaru bari na daara yu nekk fii yoo xamante ni xam nañ de boroomi daara ya ndax jenn daara ja xam nañ kilifa ga ko moom suñuy njaboot dafa ne ci biir daara ja ñu dàq ab dongo ba mu dugg ci biir daara ja bi bu kilifa ak daara ja génne dafa daw dem yoonam kon ñi dénkaat sëriñu daara yi di dénkaat suñu imaam yi di dénkaat suñu yaaboo yi ak suñu baay yi ci biir kër gi di leen ko yalwaan jëmmi yàlla di leen ko yalwaane jëmmi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di leen ko yalwaane ngir jëmmi xaadimal Moustapha ngeen téel ñu suñu doom yeeg suñu rakkee suñu sët yi ak suñu jarbaat yi ci biir kër gi te di ñu ko sàmmal. dee leen digal xale yi wax leen ni leen su ngeen gisee ku ngeen xamul bu leen nangu di wax ak moom. dee leen digal xale yi bu ñu gisee borom oto buy laajte nañu daw dem seen yoon dee leen digal xale yi ngeen wax leen ni leen. tontoo bu leen woo bëgg leen a jox tàngal wala mu bëgg leen a jox soow te xamoo leen ko nañu daw dem seenu yoon day leen waxtaan ak suñu doom yi day leen waxtaan ak suñu raq yi day leen waxtaan ak suñu jarbaat yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen balu àq te di leen bal xàq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen alhamdulillahi alkarim silmilan ala sirali bi furudin wa sunan sakartuhu lianu xat saxani liwatani bi nafa ma anfani